waxtaan ak Moussa Mbaye. yow sax tontu sax yow bari woo ba. war na yàlla bari woo ba. yow tey ngeen xam ni bari woo ba. yow ba lay xam ne am ay bagages jéem a. yow bu dee lu baax rek jëlee jeex. bu la ko fo. bu fekkee ah déglu rek. bu fekkee doo ma jox yàqu yàpp bi yal naa di. man de rabalaa bi doo ma doon ak. ah dégg naa xamal leen de. waaw bu fekkee gisuma la ba ngay rawalee foofu. Moussa eh eh. donc problème ah yow dañu doon woyaat ñu jox yàqu yàpp bi mën naa kaa teg si buntu nekk bi yàqu yàpp bi dañ. waaye yow man yow tax na man man damay bëgg a jóg man. Eh, ci bokkul bënul ak ab jëmet yow. yow leer laa la ñu. mu ci li bokkul bënul yaa ko jéem daal ñu. waaw waaw ndax lu ma ko waay. Moussa Moussa. aywa aywa aywa. oh ah wala tax na mënoo maa. non Moussa xam nga fa. Eh, yow déglu yow mel na Moussa Mbaye. parce que wala lu yàpp ñu. wala rasulilah boo dul téeméer yàqu yàpp bi yàlla naa dee. yow yaxu yàpp bi yow léegi damaa bëgg dëgg waaw yow la ñu demee si ah te Eu não waaw yow ñu jox la yaxu yàpp waaw yow ileegi eu não nga am ngoo dama wax rek an dama xaw ma eu caay nga xud ko man rawalew ama fees ñu jox ma eu yàpp ko yow ah kay wala exactement bo hoy eh eh bo hey taxawal yow yow noppi rek hoy kër gi ah. maa fi nekk yow ak sa baay Moussa bari bagage nii noo fi dugaloon yàqu-yàqu rawale woo. yow yow eh kii bu ko toog xamali de. man bu ma am sama problème ñëw fii pour expliquer leen ko jël leen bëgg naa yàqu-yàqu bi yàqu-yàqu bi. c'est parce que yàqu-yàqu bi. après dinaa leen dinaa. am nga am nga xaaral booy. booy ñun rabu ñu gis nañ fi dig gis nañ fi dof nday sa rase yii ay mel ni teekatu yàmbaa yooyu. yëqu yàpp bi an nga génne lu leer laa la yëg ah, noo taxaw rek oy wax ñu yàqu yàpp jabar yéen a ko ñaane woon wala waaw dama bëgg ngeen wax si parce que eh. bo bala maa kii rek foofu mu am na tool eh, tuuti eh, passion ba passion de la daan ويما ويما لين كو اراض ولا دون كارا وعليك باش ولا لا بو بيغي ني خيتو ني لا دابا غادي نمسو خاج دوك خاج لا سيتو واي تاخذ دير لا اي تاخذ دير لا يا جماعه سيدي انت كونتيني يا خويا ورنا يلا انا لان كان اراض واي باسا جيري باسا نيا كوسا يا سيم كا جيري man si naroon na def yow nga jël ko joxe waaye baax wala la xal la ñuy def ay siim sa cere yooyu noonu baax sa ñeex yooyu li nga def romb ni sax léegi eh, yow foofu nga toog léegi xam nga lan la léegi man la seen problème xam la seen problème waaye yow am na kañ la waxtu woon fi gàddoo saako yamba bi dugal ko cinq minutes nga indi xottu kese naa la bàyyi. a. xabaar yow dafa xam nga ma ma ñaar. waaw yaa ngi may topp saako ba léegi maa ma yokku yàpp. Eh. yow sunu gël yéen ñaar yéen yéen seen yoo yàpp. lan la ñuy ni ma toll ci yàq bi nga ci toll. wóor wóor na yàlla. Oh, man ngeen di jiite yàqu yàpp. waaw parce que billahi mi ñoo ma seen. yàqu yàqu ngeen di tuddee ngeen di jiit ma. man Albass ngeen di jiit seen yàqu yàqu. léegi lan ko. yéen yéen ma toog dinaa jël yàlla muy yàqu yàqu. yaa ngi kat yi kan lay waxal. yow dañu lay naa faal. dafa naa baax rek. wala tax ak jaay yaa maa téeméer bi. yow yaa ko dàq ñaar yow yow yow jox. man sama trop bi seetaan du ko jël. yow mën naa am sa portable nag bëri rek yow. waaye booy booy bi dañoo mën a teg de. ma bëri sa portable nag ko jël. waa bëri bagage ba tax na day day wàññi bagage yi waaw. yaa ngi mënul Moussa ñëwee bagage ba xamal. jamono ba ñuy jàng bëyitu grand-père Amadou ba grand-mère Ouraykan boobu booy bi jàng. waaye nag yaa yaa yaa yaa des suuf si. mooy fekkee yor ko sax sax kii xam nga kii xaalis la. waaw ak yeneen loolu yoroon gis nañ dañ ko mën a ko yóbbu. waaye Moussa booy bi wóoluwuma lu taxuloo kan mooy li lay waxal lu may wan ah saa yow say trois mille cinq cent su dee dem na ne am na problème war na yàq lu leer maa ne hein hein trois mille deux cent cinquante dañaa tegoon deux cent cinquante hein ay yow la ma sa karam la ma sa karam sama karam dara desee tey maa ngi ne ya. jar na bi laa wax waaye loolu waaye sëñ bi nag sëñ bi nag Mouhamed Ndiaye mais li nga xamal naa ko voilà li ngay wax dëgg la naa négocier yëpp ah kon ma sama minute. naa delloo ñu li nga jël si xol xamal naa ko mbaa di delloo delloo ñu suñu yëpp. yow yow yow yow ba nga jël suñu alal. woy woy woy woy woy sukkuraan la say baay waay am na yoo xamante ni xale bu ndaw du ko def. yow eh eh woy woy jox ñu suñu yëpp laa la. bi daa yàgg waay wax ko olof. booy booy jox ñu suñu bagage waay. xam nga bu ma nekk fii kii dama xëcc fii kii dama xëcc fii jox ma lii jox ma lii te xamuñu lu ma leen di jox. waaw waaw kay. delloo nu luñ moom. waaw léegi lan ngeen moom. suñu yëpp. yéen ñu ngi. amoo. Eh, Moussa wax ko lu mu. Eh, dama joxoon ñaar dama jox. waaw yow Moussa loolu pour la waay yow yow yow doo jaar ci digg ah. ala daxa sellal ba kaaral si diggan wax day teegal waay wax ko ko déglu ma sama mbiroo def waaw déglu la ma ah ñii ñu ngi nii ñoo ma seede ma la yéen wax xaw ma ko wala ma waxoon nag ma jël ah léegi taxawal bi Moussa kaay Moussa oy bi nañ ko wax li mu jël si ñun lu ko moy duñ ñëwaat bi an kay yàlla naa la ni amul gën góor yàlla gu koy négocier si digg bi ngay jaar suñuy koy nga jël suñuy koy Thank you. nekk fi ay minoom yooyu di seral ah booy bi bopp xam lu mu jël si ñun nee naa yow lañ di ko jox yàlla naa dee ooy jox ak sama bopp oo nay maa la dina daj yan mbiri yow ba def daal ba xam jël sama yow ba sa yoon nekk eh boy eh boy eh, man jox ma xaalis sax jox ma sama bos moo ma ko gën kelemede kelemede kelemede léegi jamono jamono jamono tey jam sa dubaaba olay ma tëj ayca ayca ayca Bal Bal كلمة كلمة لك تمام تمام تمام تجربت تمام sama xol bee seet ndax li muy diisee nii xam naa damay ko xam Moussa kay Moussa Moussa booy bi nañ négocier moom man instant bi nii xaw ma si du may dox de ak sama bos xàmmee naa ko daa am ay brillant si digg ay brillant bare bare bare wóor na lool parce que mos moom lëgët ci bopp bi moom ah, lëgët yi. waaw léegi ni dese rek ñu jël ko dem parce que saa bi guddi la de. waaw mu ne rek yàlla mën naa def nga dajeeg beneen bambara bu la joxaat. tey génn fi nga xamante ni moom mooy Darou Rahmane ngir wane waat encore preuve si li nga xamante ni moom mooy seen diggante seen xaritoo seen jàmmoo ay ca bu nga defee ma daal di jox kàddu gi bàyyi cafka ay ca ok Ouzin ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax di wax euh, salaamaaleykum waa Darahman euh, jëmm ji nag dama bëgg ngeen déglul ma bu baax ci li may wax ci Moussa nit ku oyof a te lii dafa yombul parce que ñun ay ndaw lañ nekk ci dëkk bi di yëngu ci aar aar bi ñuy yëgu nag féete ci côté théâtre donc mu yéene ñëpp jàmm Moussa Mbaye bu sañoon ñëpp avancé nañ parce que lépp lu mu yor na ñëw laaj ko ko sax Moussa yëkkati na loolu teg solo sa bi muy waaj lii ba fi mu ci toll amul benn bés koo xamante ni woowu ma téléphone ni ma jafta maa ngi def lii ak lii ak ko loo def baax na bés bii dinañ bàyyi lépp lu ñu jàpp ñëw assister ko dund koog yow mu doon ko oyof bu ngeen xoolee ci euh, série Thiatta Family bi euh, am na ci vidéo yu bari yoo xamante ni maag moom ñoo ko bokkandoo joué te saa yi bu ma ko woowee mu bàyyi lépp lu mu jàpp ñëw kon bésam bii faaw ci euh, mu nekkoon troisième édition Euh, di ci sargal yaayam mu yaay Alima di ñaan suñu yaay jooju yàlla bàyyi ko fi mu gën ñoo gunge parce que nag olof jaay day fee faral di wax naan peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbaggee te su ci woon amaana tey bés bii du demee nii ndax Moussa bu ko yaayam seetaanoon wax dëgg yàlla du demee nii kon bés bii bésu fierté la bésu mbégte la du ñu jël temps bu bari parce que ci kanam tuuti dinañ dugg maak moom am nu ñu def ñëw jàkkaarloog spectateurs yi yëngal ba mu yëngu mais encore une fois Moussa ñun kontaan nañ au nom de ñu ngi lay sant di la gërëm parce que boo diisoon wala nga jaay ñu leneen du ñu ànd mais yaa baax rek Ouzin ci kanam tuuti dinañ dugg. ay ci Moussa. salaamaaleykum. di jiital kàddu cant ak di ko jagleel ñëpp nga xam ne te seen i te ñëw fii parce que euh, lii yombul quoi parce que ay saison jiw lee baax na jiw lee mais nit ñi ñu ngi sant ñëpp ñoo xam ñi nga xam te ñoo bàyyi seen yite na fii mënu ma wax nag mais il ma jéem a pour mu wax ndax jëm ji ñi ndax sëñ Touba lu mu wax ci ma lu nekk la ëppee programme dama koy woo sax mu ne ma ndax am nga ma ne ko ah waaw am naa ko mais euh, bëgg naa ko mais moom laa bëgg li ko temps moom mu ko deexoon du ko ci fekk ko moom moo ko moom moo wax parce kii Ousseynou TFM TFM la ne moom moo ko indi te moo ko jox transport moo ko fay xaalis bu bari bu mu ñëw taxaw fi tey billaahi la si kon kii amuñu fayam te lu baax rek lay wax ci man dégg lu mu gis ci man loo xam te ni dugal naa ko loo xam ne dina ma oo dama kat diw lii ak lii naa kon moom bi amuñu amuñu fayam tamit di la ñaanal li nga xam te ne yaa ko bëgg. waaw ah, wax dëgg yàlla tamit fi nga des a tànn bu ko tegi foofu. parce que yow yéen a ngi ñëpp jàmm. ak Serigne Touba Mbacké. kon. Euh, xam nga non non kontaan naa trop def ko di lay ñaanal tamit li nga xam yaa ko bëgg ci aar yàlla ko si borom defal parce que xam nga man mën naa ne bañ mënantee yàggu mais rëccu ma ko parce que lépp lu baax loo xam yaa ma koy digal te lépp lu baax loo xamante ni xëy boobu moo loolu barki dee moom téléphone boobu ma may sama soxna moo ko jënd moom laa dem na ko lii laa bëgg ak lii ak laa bu ñoo am na ba ci kii bi mooy loolu kon kii aw ma fayam barke Serigne Touba Mbacke dañ ñaanal tamit li mu bëgg moo xam yàlla ko suñu borom def yàlla ko suñu borom defal yes merci beaucoup euh, Moussa Mbaye merci encore ki nga xamante ni moom mooy euh, Baye Thiaftan léegi léegi dans quelques instants il va venir monter li nga xamante ni euh, moom mooy seen bu rëy boobu dina ma neex bu ñëw indiwaat ko ndax yaa ngi fàttaliku ba ñaari soxna yi di xëccoo ah. moo ko daggee du baax de dama koy dagg de. Baye Thiaftan est-ce que xam nga Abbas. Abbas. mais tay dama gis dama gis si statut benn affaire bu grave borom kii woo kii wu loo. Ah, ah yaa doxaanoon doxaara ñu ngi ñëw ci yow léegi léegi. mo doon bolé waji waji waa ji ëmbal doomu bay bay jox ji mo ngi. ay ci alors ñom ñep ils sont des artistes petits de talent ils sont là tout simplement tay pour nous accompagner merci beaucoup c'est l'heure d'accueillir le groupe. c'est bon alors.